لا إله إلا الله فعل لا إله wa barakaatu mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi fépp fu ngeen mën a nekk ci àdduna wërngal këpp ñi ngi am mbégte di ànd ak yéen ci jataay bi nga xamante ne bii ndigal la lu bàyyikoo ci sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér bu ngeen gisee toogaay bi it comme niñ leen ko daan waxee rek ngeen xam ne am na lu ko waral lan moo waral toogaay bi muy ay taalibe yu demoon ci ay tool liggéeyali seen ab sëriñ ba war a indi jiwu bi lan mooy jiw bi muy njabatuk sëñ Tuubaa gi nga xam ne ñoo nekk tubaa Argentine war a indi seen addiye ci ki fi nekkal Serigne Touba te moto ko sëkk muy Serigne Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadou lemin Bassir ñu jàpp ko ajjuma bi nga xam ne moom lañ dëgmal di tombeek le 6 ci weeru tubaab muy weer bi nga xam ne ci lañ nekk ah, ñu fas yéene ko taxawal nag ah, di ci woo mbokki taalibe yépp képp koo xamante ni yaa ngi Sénégal ñu ngi lay woo ci ziar bi nga xamante ni moom la ñuy defal sëñ Mountakha Bachir mu doon ajjuma incha 11 heures bu soowee borom bi na ñu fekk ñun ñëpp fii ci bërëb bi nga xamante ni mooy kër sëñ Tuubaa nga xamante ni moo féete euh, sow ci euh, jumaa ji kon nag ñu ngi woo mbokk taal yëpp képp koo xamante ni yaa ngi fii euh, Sénégal rek ñu ngi lay woo ci bis boobu képp koo xamante ni itam dégg nga lii nga xamante ni moom mooy communiqué bi te nekk ak sa mbokkum taalibe moo xamante ni war naa ñëw ci ziar bi nga yëgal ko ko bu ko defee ñun ñëpp ñu ñëw teew fii ci àjjuma ji incha allahu bi ànd ko mbokk jëwrin yi nga xamante ni ñoom ñoo toggee ci suñu wet. lii ni ñu ngi koy def communiqué bii ñu def. mooy appel si ñëpp mooy woote ci ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi ci réew mi ñu bokkandoon doon liggéeyal Serigne Touba ci Argentine jàppal ni le 6 bii nga xamante ni moom lañ wax di aljuma woote nañ ci ñu daje fii ci kër Serigne Touba gi bu 11h jotee di vendredi pour préparer li nga xamante ni moom la ñu war a def mooy dem ziare xalifa général ci liggéey bi nga ak addiya ji nga xamante ni ñoo ngi ko doon dajalee di ko ko liggéey at bu jot ñu koy def ñu fas yéene koo bamtuwaat di ñaan yàlla suñ borom képp koo xam ne am ñaqam tàbb na ci yàlla na doon ay milliards ci yow ci barke Serigne Touba. ndax ni ko sëñ Tuubaa ñaane woon ne yaa rabbi ijaalil muridina maan fi xisnikal xasini wa samli ajmaa loolu mbàkke loolu dañ la ciy sant bu wér weer waaye ñoo ngi sant suñu mbokk yi nga xam ne ñoom la àndal ñu bàyyi ko ci barab yi fasantikoo muy sëñ Bamba Jonn mi nga xam ne Thiès la jóge sëñ Moustapha Abdoulaye Karam mi ak eh, ñoom maam xaas ak eh, ñoom jëwriñ sëñ Baara ji sëñ Mor Seen macha allah jëwriñ yi eh, sëñ Xaadim Ndiaye bu Posada mel na ne mbooleem jëwriñ yi fi teew yëpp rek danoo ñëw fedd li ak sëñ Ousmane mi nga xam ne moom it ak sëñ Mor Cubb ñi nga xam ne ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ci daayira yi sëñ Tuubaa yi lan bokk waaye bokk ci fédération bi ñëw nag jëmmal woote bi nga xam ne moo jëm ci ziyaare bu mag boo xam ne dañ koy amal at mu jot fii ci Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou kon woote boobu le 6 la doon ajjuma waaye nag ñi ngi koy ñi ngi woo waa kër Seydi Alhaaji Malick waa xadratul malikiya ci turu Serigne Modou Ba kon ñoo ngi koy yëgal waa xadra bépp rek ci turu sëñ Mortala Sall kon képp koo xam ne daal yaa ngi nekk Sénégal te bokk ci waa kër moom Seydi Alhaaji Malick si te àndandoog ñun liggéey bi kon incha allahu taala ñu ngi lay woo ci siyaare boobu ajuma boo feexee nga yegg si fii ñu ànd siyaare ji ndax noonu lañ ko daan baaxoo ñun kat seede lañ ci yéen wax dëgg yàlla seede lañ ci yéen gis nañ seen taxawaay seen pas-pas ndax mbooloo ma yàggut Argentine ci dëkk yu bees la yàggut lool waaye wane nañ ne maanaam àdduna bi yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi koy seere fépp nag fépp fu ma dem ci adduna bi rek ñu ngi seere pasteefu waa euh, Argentine kon nag ñu ngi sant bu baax di nuyu jëwriñ sëñ Mourtala sàll ak sëñ Bamba Niang ak mbooloo mi nga xam ni ñoom lañ jiite ñëpp euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, jataay bi nag moo xaw a gàtt waaye liñ liñ yéene woon a wax daal xaju xajut ci fii daal kon dañuy sant bu baax rek yàlla ñu sëriñ bi dugal ci waqdi awaa ijal la siina daamu fii xidmati wahab lahum maaraamu laa ilaha laa ilaha illa